sursis amende deux cent millions. Uh-huh. lan lañ ciy dégg ci interprétation. Uh-huh. waa déjà li may li may li may rectifier du du amende deux cent millions. c'est dommage intérêt. dommage et intérêt d'accord parce que nit ñi dañuy def confusion mm-hmm. entre l'amende et les dommages intérêts. tout à su fekkoon ni amende deux cent millions amende deux cent millions pratiquement amul. voilà mm-hmm. c'est les dommages et moom mooy dem 200 millions dommage intérêt yu nga xamante ne dañ koy fay la partie civile moom Mame Mbaye Niang. kon dégg ngeen ko. voilà dommage intérêt dommage intérêt de koy fay. voilà que bu doon amende trésor public mhm. nga koy fay. mais bi nga xamante moom mooy partie civile moom Mame Mbaye donc euh, li nga xamante mooy condamnation bi mooy deux mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer loolu mooy décision de justice bi. Mmh. maintenant la conséquence bi moom mooy li ñëpp doon ragal euh, du am. mooy Ousmane Sonko ne perd pas son éligibilité en vertu des disposition du code électoral su fekkoon ne dañ ko condamné à une peine de trois mois avec sursis à partir de ce moment la doon na perdre na laa koy waxee nañ bifé touram hmm. ci liste électorale yi pour une durée de cinq ans. vu les infractions yi nga xamante ne dañ ko toppee damay fàttali ne Ousmane Sonko ñu ngi ko doon toppee pour diffamation diffision euh, faux et usage de faux. ak injure publique infraction yooyu nga xamante ne dañ ko ko doon toppee pour que mu mënoon euh, perdre li nga xamante ne mooy inscription ci liste électorale pour une durée de cinq ans article L30 il fallait que condamnation bi yegg ba trois mois avec sursis su fekkoon ne par exemple dafa nekk lu nga xamante ne daf koy perdre définitivement comme li nga xamante moom mooy xalifa Sall ak Ousmane Sonko bu boobaa il fale que condamnation bi yéeg ba six mois avec sursis bu boobaa lay perdre définitivement donc article L29 daf ne ne peuvent pas s'inscrire sur les listes électorales entendons ad vitam aeternam ku nga xamante ne dañ la condamné pour infraction yu ñu koy toppee à au moins six mois avec sursis mmh. ne pas s'inscrire sur les listes électorales pour une durée de cinq ans article L30 ñi nga xamante ne dañ leen di poursuivre pour yenn infraction comme yu ñu ko doon toppee ñu condamné la à trois mois avec sursis mhm. wala mu nekk amende bu nga xamante ne yegg na peut-être ba ay cent mille deux cent mille boo xoolee condamnation bi ñu ko condamné amul benn condition bi nga xamante ne am na ci ci loolu. eggul ci trois mois trois mois avec sursis yeggu fa. condamné wuñ ko à une amende bu nga xamante ne mën na ko considérer comme une peine complémentaire donc domage et intérêts deux cent millions de dommages et intérêts ne peuvent pas euh, dugg ci calcul bu nga. xamante ne deux mois ak trois mois un mois euh, un mois trois mois et non un mois. l 29 que un mois bi dafa fekk ay infractions yu nga xamante ne dañ ko listé. par exemple ñu ni vol. Mhm. escroquerie détournement des deniers publics ak yooyu. te yooyu infraction yooyu nga xamante ne dañ koo listé bu fekkoon ne yooyu lañ ko doon toppee. Mhm. buñ ko ci condamné woon un mois bu boobaa day per éligibilité. Mhm. mais toppee wuñ ko infraction yooyu. loolu moo tax loolu moo tax disposition boobu na s'applique pas à lui. disposition bi appliqué wu ci moom mooy yeneen infraction yu nga xamante ne mi ngi nekk ci code pénal te yi nga xamante dañ ko koy toppee nekk ci disposition yooyu foofu dañ ne il faut que ñu condamné ko à trois mois avec sursis. pour que mu mën a perdre li nga xamante moom mooy éligibilité. deux mois trois mois donc da ngay gis ni moyen na ko tuuti bu ñu mënee waxee noonu. waaw ça tient à quoi est-ce que ci interprétation ci euh, maanaam libre arbitre juge bi la